Euh, ku def lu baax ñooñu def nga lu baax kon président Macky Sall su yëkkatee tey huit cent millions mooy suñu koppar ñun contribuable ne da koy jëbbal euh, famille yooyu euh, ñu ngi ko ci jaajëfee wante lu muy wane mooy moom ci boppam président Macky Sall nangu na ne que état dafa erreur kon nangu na ko mooy bu njëkk bu ci tegu nag mun lu may ñaawlu mooy nguur gi di jéem a tey à travers le CNRA. tere tere doom bu ngeen xam ne ni mënoon na may ay sénégalais ak ay sénégalaises ñu mën a wone seen cofeel wone seen bopp ci euh, ci famille yooyu ñu ne dañuy tere seen TV ak groupe des médias ñu tere ton ku dañ koy ñaawlu parce que ku def lu baax ñu ne def nga lu baax ku def lu ñaaw ñu ne da nga def lu ñaaw te nguur gi tey lu ñu def ci mbir téléthon bi dafa ñaaw lool lool lool lool lool te dafa jaaduwul parce que fekkee nañ fi gis nañ fi suñu benn euh, mbokk bu ngeen xam ne ni dañ ko yoon moo ko daan ñu ko noonoon euh, euh, topp tëjaat ko kaso daanaka benn télé taxaw fii def téléthon euh, def ci cent million pour benn nit kese pour mbañ a dem kaso te justice moo condamné donc loolu CNRA waxu ci woon dara te bëgguma solo ci CNRA parce que je pense que tey surtout ku koy jiite wax dëgg yàlla fekk nañ ko gis nañ taxawaayam jamono Abdou Diouf ba tey jaarale ko tamit ci jamono Ablaye Wade je ne considère pas que ce soit un exemple de bonne gouvernance un exemple de vertu un exemple même de démocratie wante euh, dañ koy ñaawlu te ñun dinañ góorgóorlu ak réseaux sociaux yi ak euh, internet jéem a xool nu ñu mën a organiser benn téléthon ngir euh, bépp doomu Sénégal bu bëgg a joxe ndimbalam wala bëgg a wane naqaram ci lu ngeen xam ne loolu moo dal soixante neuf familles yooyu mu mën a boppam donc loolu suñu responsabilité la et je pense que ça sert à rien dans une république qui se respecte d'utiliser des organes comme la CNRA pour empêcher à des télévisions de pouvoir faire un téléthon et bien sûr maa ngi gërëm waa des médias maa ngi gërëm tamit Bougane Gueye Dany te je pense que je les comprends parfaitement parce que tamit euh, dëkk bu nga xam ne ni dañ lay jaay doole doole jaay doole lañ fiy woote kooku euh, je je je pense que c'est une décision de ne pas organiser le euh, téléthon est une décision sage mais ce téléthon dans les jours à venir il sera organisé avec des Sénégalaises et des Sénégalais sans avoir à exposer qui que ce soit en utilisant les réseaux sociaux et Internet inchallah